الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم mbokk yi noo ngi sant borom bi subhanahu wa taala te julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey sant ñi taxawee daara ji waaye di sant ñi nga xamante ni ñoo wuy si jotaay bu tedd bi di jotaay bu alquran alquran comme li Oustaz Guèye wax ne téere borom bi lépp lu nit di yittewoo moom nga war a njëkkee moo tax comme lim ko waxee ne siira jaar-jaaru mag ñu baax ña ak borom xam-xam yi yëpp boo ko seetee ci alxuraan la ñuy njëkkee te alxuraanit moom la nekk ba am lañ ca am alxuraanit it la mujjee moo tax ibnu taymiya rahimahullah day wax mu ne téere borom bii de aka waroon na teel a xam ne lépp a ngi ci wala réccu na daal lu tax temps bi mu di ko passé ci yeneeni téere wala nangam bu doon toon loolu dana yem rekk ci alquran karim loolu nag waxu borom bi subhaanahu wa taala la mooy ne xam-xam mooy alquran nee na bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilm ayat bayinat xam-xam buñ koyo mooy xam-xam boo xam ne dafa balle ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag ne ñaari yooyu boo ko jëlee bu ñuy wax boroom xam-xam mooy kim nekk ci sa dënn ayaat mooy alquraan yi bayinaat mooy yi nga xam ne moo koy leeral te mooy sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa anzalna ilayka dikra ma nuzila ilayhim maanaam borom bi dafa wàcce alquraan ci yonente bi ngir mu leeral li ñu wàccee ci moom leeral googa mooy sunna si yonente bi sallallahu alayhi yàlla nag ne ñaar yooyu mooy li nga xam moo nekk ci dënnu borom xam-xam fii suduri alladina utul ilm kon ndaw yi nga xamante ni alquran ñu ngi ci seen dënn ndaw yooyu doonatuñ ay ndaw waaye ay boroomi xam-xam lañ xam-xam mooy yàlla nee na bi nee te mooy téere bi nga xamante ni lu mu laal lu ne borom bi subhaanahu wa taala da koy barkeel lu mu laal lu ne borom bi subhaanahu wa da koy da koy barkeel malaayika mam laaloon di jibril mooy sang malaayika yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam miñ ko wàcce mooy gën ci nit ñi kon képp ku bëgg a nekk it ki gën ci nit ñi dangay da ngay bokk caw ñi nga xamante ni ñoo takkoo alquran moom la yonente bi sallallahu wa sallam doon tënk ne xayrukum man taallama alquran wa allama ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moo jàng alquran di ko jàngale maanaam ka gën ca malayka mooy kañ ko wàccee ki gën ci nit ñi mooy kiñ ko wàcce yow nag boo bëgg bokk ci ñi gën ci ñeneen ñi bokkal ca ña cay yëngu yëngu bi nag mooy di ko jàng di ko jàngale dafay joxe misaal toujours ne alquran yegg na ci foo xamante ne lu bon sax bu ko laalee day day faara baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku jàng benn araf ci alquran am nga fukki tiyabu mu ne waxuma alif laam miim mooy araf mais alif bi arab la laam bi araf miim bi di arab muy kon boo ne alif laam miim rek am nga fanweeri tiyaabo boo ne bismi am nga fanweeri tiyaabo ku ne xam na ne ki gën a kàccoore ci doomu aadama yi mooy firawna ah firawna waaye tey fu yàlla ne waqaala firawna yow nga ne waqaala firawna ci alquran rek am nga juróom fukki tiyaabo ngir li ci yàlla wax ci alquran rek waaye boo ko waxoon feneen doo ci am dara doo ci am dara waaye comme yàlla wax na firawna baat boobu noonu boo ko jàngee ci alquran rek danga ko da am juróom fukk iblis yàlla da koo rëbb ku bon la waaye boo ko jàngee ci alquran rek am nga juróom fukki tiyaaba ndaxte turam wi juróomi araf la seytaan rajim moom i tamit boo ko fekkee ci alquran jàng ko danga am lan juróom fukki tiyaabo ndaxte turam bi moom i tamit juróom fukki euh, euh, araf la kon loolu borom bi subhaanahu wa barke boobu mu ci def ak dayo boobu mu ci def mooy munul nekk fenn ba pare muy neen moo tax benn borom xam-xam ci réew mi day wax mu ne moom gisagut koo xamante ni wattu nga sóoratu baqara man koo tari ba pare di taxawaalu déedéet loolu munul nekk maanaam kii ñu ne mokkal na sóoratu baqara mokkal gu wér waaye amul liggéey déedéet loolu loolu boo ko doon seet doo ko gis faaw mu am fu muy xëy te faaw mu jàpp ci dara it kon loolu nit ki war na ko bàyyi xel gën cee góorgóorlu gën cee farlu gën cee jox yitte benn borom xam-xam nee na moom day gis ne jour yim saa bu jàngee alquran lu mu gën a jàng alquran rek jour boobu lay gën a neexle jour boobu lay gën a am ubbeeku kon alquran téere bi nit ki lum ci def rek na ko xeeb li mu wax nag moom eh, Guèye lu jar a bàyyi xel la mooy ndaw yi ak âge bii ñu toll bu leen leen jéem a def loo dara lu dul alquran lépp lu ñuy def lu dul jàng alquran rek ña ngay tardé. waaye lépp lu ñu am ci alquran ci luñ ci yàgg-yàgg luñ ci sonn-sonn mooy perte wuñu tardé wuñu bul taxaw nga naa ah waaw moom kañ lay dugg ecole ka déedéet bu paree dana dugg école raw gaaya dana mokkal ba pare ñëw ñi nga xamante ni woon ñoom nekku ñoon ci alquran dem di jàng leneen moom bu bëggee mën naa leen raw dab ba pare raw leen parce lu tax mooy xolom bi li ci nekk xajut fenn mënta concours kenn képp kuy gañe alquran mënoo concours ak keneen te doo ko gañe kon loolu na suñu xel dal beneen bi li mu junjit lu am solo la mooy dañ ciy gën a insisté mooy coono bi bi ñuy yaakaar ne mooy nekk ci daara mooy ay seet gaag xiif gaag lii ya nga xamante ni ñu ngi koy tudd ci wàllu daara ne loolaa fa nekk loola du dara tey ab sëriñ daara doo ko gis mu nekk koo xamante ne dañ koy xeeb ci wàllu colin wala ñu koy xeeb ci wàllu cet déedéet kon loola nga xam ne kon bu jógee ci daara ji coono ba nga xamante moom la yàlla doon wax ne oh, danañ wàccee ci yow lu diis coono boobu noonu mën a ñàkk ci alquran yonente bi aleyhi salaatu wasalaam it gis nañ ne histoire am moo première bi muy jël alquran it noonu la meloon faw coono am ci waaye gannaaw coono boobu teraanga moo cay topp kon yàlla ñu yàlla defal teraangaay alquran waaye it ñi nga xamante ñoo ñuy taxawul suñu xale yi yal na leen yàlla fay yiw yàlla defal leen tawfiq te it daara ji yàlla yokk ko ñu ngi sant sëñ Thiam bu baax baax di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mébétam ci daara ji yàlla may ko ci lu ëpp njortum gën koo defal tawfiq ak taysir wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jazakallahu khairan